macha allah nee naa leen nag lu ñu fàng ci nu ko jeex ah, Touba Fakal la nag sama xaali xëy na ah, tey nag Cobra Cobra ah, mami Cobra borom VSD borom àddina borom Sénégal borom keeskaay xale bi nga xamante ni teel a xëy guddee wàcc soxlaaw daraay góor sama xarit bi sama waaji sama jumelle bi tey moo xewle ñi nekk ci li nga xamante ni mooy du si safar mu tombeg bistu anniversaire am nee naa la bis bu dellu su moo neex rawatina bu del si dellusiwaat dañ koy fête ko màggal sama xarit bi macha allah loo dund doyul nuyu naa la doy maa maram doy kontaan naa ci yow bilaay sama xarit bi yaa baax waaye fay naa la di la ñaanal jàmm di kontaan ci yow Fatou say teraanga sank rek ñu koy waxaat Fatou mënu ma la fay dama lay ñaanal yàlla di la bàyyi yàlla yàlla mi am fay yàlla ma la yàlla fayal yàlla may la borom kër bu baax nga dund nag ba ma lay fay si li ma lebal ndax boobu ba tey yaa ngi leb la rek barke Sëñ Fallu Mami Diallo yaay xewle macha allah ah, tey du macha allah mu tombeeg bés bi nga euh, juddu mu dellusiwaat ah, tey nga def ko safar def ko cant joxe xéwal yi macha allah tubaab fakkaal la waa gis nga sëñ Touba lii la bëgg lépp ci jàmm lépp ci sutura lépp ci dal macha allah tarkal la ñu safar rek comme que tey la sama bisu juddu ma ne naa ko def safar rek ànd ak màggal gi ndax Serigne Touba kenn amul fayam moo julli géej gi wax dëgg yàlla mooy Serigne boo xam ne laaw la cat fii ci Sénégal ak képp ku mu mënti doon gis nga lim daj daj na lu ne moo tax ñun ay taalibeem tamit damay gëm ni dañuy daj lu ne ndax ay taalibe Serigne Touba lañ mënuñoo noppalu mënuñoo nàkk dégg mbugal yi faaw mu ñuy dal ndax lépp rek kenn lañ gëm muy Ahmadou Bamba Khadim Rasoul ku ko gëm faaw yàlla di la teg nattu moo tax gëm di wàqiru nag ci yàlla di ñaan yàlla yàlla di gën a fees ci suñu dënn ci barke Seydina Muhammad ndax ñun yàlla rek moo ñu ñor ndax ëllëg day ñëw hmm. macha allah gis nañu bi nga xewlee say xarit say mbokk say am di jàmm ku ci mel ne Mame Ndiaye Savon gis nañ ko mu ñëw macha allah indi teraangaam ak ñeneen ak ñeneen tey boo doon wax sa diggante ki nga xamante ni moom Mame Ndiaye ndax yu yu bari duñ ko faral di gis ci yu bari yu mel nii. Hmm. Ah, tey ñu gis ni déplacé wu na ñëw na def na délégation macha allah. ba pare du délégation rek yam ci indi fi xaalis bu dul jeex. li mu fi indi sax damaa tiit ba mënuma koo wax wallaahi lazim ndax dama dama dama dama naan maam sama maam la ndax maam mami Cobra mami Cobra la ñun Alaaji Fàllu moo ñu boole ñu bokk bëgg-bëgg bokk vision maam sama yaay bu koy seetaan day mel mami Cobra lay gis maam ma koy seetaan day mel ma bëgg ko lool nag ko bëgg te ma ci moom tamit xam naa ni ndax lii mu la ndax jugu ndaanaan ndax maam ku ko xeebal ndaanaanam gi nga doon dafa fekk doo ko doon yow dafa fekk nga soxor ndax naanaan la ndax xale yi bëgg nañ ko te ba nga ñëwee léegi gis nga ku nekk ñu ci bëri dañuy ñëw tey dañ naan woon maam Ndiaye Savon lañ bëgg a gis macha allah tarkal la àddina bëgg ko ma ko koy ñaanal nag lii mu am yàlla na ko muurloo ndax nit ñëpp ko bëgg dama naan ko bul fëggati sa dënn ne am naa noonu amoon noonu yow ñëpp la bëgg da ngaa ne na ma lebal ma lebalaat ma fi ma lebalee mooy foire bu njëkk ba foire ba ku ne mami Cobra mu yëkkati maye sunu sabara togg ku ne mami Cobra mu yëkkati maye ba ak barki démb Njaay foire ba foo ne mami na ko wan ni maa la raw ndax xam naa ne tamit jàmbar la ma jàmbar jaxase nañu ba sonn ñu dëgër fi ñu ñaari góor yu war a la rek di ànd. macha waaw ah boo xoolee ndax Sénégal la ñu nekk parfois su ma génnee wax ñu ne ko kii dafa seytaane maam su waxee ñu ne ko ñu ne ma génnal ci moom patati patata àddina moo mel noonu mais dañuy góorgóorlu dañuy muñ dañuy liggéey daan suñu doole ndax bëggante nañ ta nekk ay nit ñu baax doon ay doomi gor nag ndax nday ndayam gërëm na ko te sama nday gërëm na ma mm-hmm. sa diggante yaay complicité sama yaay nag maay taawam te taaw njëkk a juddu njëkk a baax te du ma ne kenn bonal ndax sama yaay maa yor léppam maay léppam moom léppam man la bañ na ko kër sa bu ko jëlee sama tur la ciy def Diop may sa ma koy ñaanal gudd fan ak wér moo ma tàggat ci jom ci fulla ci fayda ci personnalité ma koy ñaanal jàmm ak sutura bu wér sax sama yaay Diop may sa yàlla nga gudd fan yaay. gis nañu sponsor yi macha allah bis bi euh, li muy rëy rëy am na sponsor. bis bi sponsor yi laaw la cat ku ci mel ne Aziz Ndiaye nee naa ko borom j'adore macha allah ak samay càmmiñ samay xarit kenn wàccu ma kenn wàccuma ci bis bi ak traiteur ak waa Teranga Bache macha allah ak aram aram mi nga xam ne nee naa ko yaay traiteur bu mag bi fii ci Thiès ba pare ñëpp ñu ñëw ci bis bi ñooy traiteur yi gën a mag traiteur bi mooy traiteur bi gën a mag ci Thiès macha allah bu dee keneen ki la tamit di borom bâche bi mooy bâche bi gën a mag ci Thiès bañ na ko ba Thiès képp kuy bâche wala képp kuy def dara ñoom ngay woo kon ka xam nga ni macha allah ay leader rek laa àndal tarkaal la vas Mame Ndiaye waaw nuyu naa la fay naa la faat Mbaye man tey nga mel kontaan. ndax sama waa ji moo xewle tey Mamy mhm. Cobra. Mhm. moo woote safal. te ñun ay murit lañ comme niñ ko waxee woon sànq rek bu wootee tafal ñun ñëpp dañuy ñëw parce que dañoo kontaan fier ci moom. Mhm. Euh, Mamy Diallo nekk sa xarit euh, nekk sa doom nday ngeen bokk milieu bi macha allah ñi euh, duñ la faral di gis yu mel ni mais tey dañu gis nga déplacé ñoo def sa doole def sa lépp macha allah. Mamy dafa baax jaral na ma loolu macha allah man Thiès mosuma fi ñëw. maa ngi doog a ñëw cees mosuma ñëw cees mosuma am benn kër gu ma dugg cees bi mooy ah. première kër gi ma mos a dugg Thiès mi kër ñoom mami Cobra mm-hmm. mu nekk nit ku baax nit ku gën mu woo ma ne ma maam sama anniversaire dafa jot dama ko bëggoon a def nit ñi ne ma naa ko safal ndax weeru safal la ma ne ko loolu kay moo gën mm-hmm. muy taalibe Alaaji Fàllu Sëriñ Fàllu boole ñu man ak moom nee naa la moom mooy maam Ndiaye savon cees man maay mami Cobra seen dakaar kon mu neex bay bëgg a dem ak kontaan bu baax a baax a baax di ko ñaanal lii mu def nii bu déwénee yàlla na doon yàlla na gën a yokk daal parce que nit ñu baax te nit ñu baax ñi tey ñoo ko wuy si tey ku ñëwul rek setoo Euh, Mame Ndiaye nga nekk porteur de voix ah, boo waxee ñi déglu la ñu gis ni Sénégal toj na léegi euh, sa mën nga koo mënti waxal euh, xalaatal ni ëllëg mën ngeen a jote say wax ak moom génn ñu gis ni ci xew Aliou Seck bi ab xew bi mu passé gis nañu ay audio yu fuité tey ba ñu doon wax ci loolu lan la man nag man nag wax fa dëgg yàlla ñoom xawuma leen te mënuma ci wax ci ñoom ci dara mais daal li ma mën a wax daal man pour conseiller ko Sénégal mooy na ñëpp réglé na ñëpp yam ci seen place bàyyi xaritoo bàyyi àndandoo ndax te Mbaye li la gën a métti ci sa àddina te xarit moo la koy teg gis nga tey boo wóoloo nit ba wax ko sa problème kooku wóolu na keneen ba wax problème am bu ko defee wax ji daal di law sénégalais yi nanu bàyyi wóolu doomu aadama ak ku ñu gis ne ko sama xarit nga sama mère Amina Fatou may man ku laay àndal ku ne may fréquenté waaye fekk jiw ma kenn ñëpp may fréquenté amul kenn ku ci taxaw ne wax na ma lii ci biir privé sama sëy sama leneen ak leneen léeg ma jékki saa dégg ñu ne maam Ndiaye dafa tas ay ree jàpp ma is am ma kenn ku ma expliqué dara ci sama ndax dëkk bi moo toj ku ne nag garder sa bopp dëkk bi dafa toj nit ñi dañoo foo la ñuy wax ak li am du benn nit dalay lay siñ bañ nga foog ne bëgg na la fekke bëggu la ku la xamal day yàqamte nga joteeg moom mu yebbeeku lii moo am ci réew mi ku ne na garde sa selfie man maam Ndiaye de aw ma xarit aw ma àndandoo wax naa ko partout dans le monde te tey laa ko gën a mën a wax aw ma xarit aw ma àndandoo te amul benn xarit buy taxaw ne maam Ndiaye lii la ma wax man sama bopp laa gëm focus ci sama liggéey à part ça koy sama xarit l'argent l'argent l'argent connexion l'argent écran moom laa def xarit sama jëkkër jeex na tàkk li ma naqari maa ko xam li ma naqari ma téye ko pour man amul kenn ku may service sama dara parce que dëkk bi moom fi mu ne kuy bañ ñu fuité la rek bul servi kenn fuité la bul ferdi bul servi kenn dara uh-huh. dëkk bi uh-huh. dëkk bi Mame Ndiaye Mame Ndiaye màggal gi eh, gis nañu charte yi bari na Baye Fall yi ah xanaa ñu jéem a def sarti baal yoo xam ndax ren moom la yooyu yëpp dina dem waaye di nga gis ren. ah booy dugg Touba na ne waaye kuy génn li la <laughs> naqari ci yow wala uh-huh. na Baay Faal dañoo waajal ñi yor nañ ba pare dégg naa bi ba ama la lañ defal ay xiir xam ngeen xiiru njëkk ya xam nañu jég di saa ne la varaj datoo xam fu la varaj dugg si dina neex waaye génn si bi mooy métti <laughs> Baay Faal yi takku nañ ba dëggal nga yaakaar ne xale yi ren li ñuy démonté ah ren ni nga gis lu de man de gis naa si ñoo xam ne ay soutien la ñu ñawlu soutien yi fi la ñuy dugal ay perruque ay lu ne Baye Fall bu dee mën ngeen a ñëw ba ci soutien yi <laughs> Baye Fall yow ren surprise yu bari dina am ci màggal gi. <laughs> sama genre nga xam bu ñu def xel fu ñu doy na waar de doy na waar te ñoom dégg naa takkaay sax ren dañ ko dañ ko tere takkaay te man moom maa kenkaay yëre <laughs> ah yàlla màggal gi dina métti daal dina métti nag waaye sëñ bi na génn nag wax nee na sëñ bi nag na génn ne nañ bàyyi ba màggal yi ndax ñëpp yamuñu te ñëpp bokkuñu ku nekk ak fa ngay jóge waaye ñun ay murit lañ ñun loolu moom bu ambiance jeexee ak kaf ak foo ñun ay murit lañ dañuy dañuy dañuy tere dañuy bàyyi tere di jëfe ndigal waaye nag am na ñoo xam ne xamuñu ci loolu ñoom ndeysaan duñu ay murit dañuy ñëw tuubaa rek te duñu xam sart yi nu muy tëddee ñu ñëw nañ leen di bàyyi xel ñooñu ñun bu fekkee ñun ñi nga xam ne ay taalibe lañ ñun nañu bàyyi xel ci li sëriñ bi wax mais ñi nga xam ne dañoo ñëw rek pour xool si buñ leen def dara bu leen wax dara bu ñu paree ñu tëddalaat seeni sart parce que màggal la te màggal fu ne la nit di jóge di ñëw di ñaanal ñëpp jàmm di ñaan Sénégal jàmm di wan ni màggal gii ñun ñëpp ko bokk benn bopp la kenn mënu ko xar ñaar rawatina man man lépp laay dem man damay dem màggal damay dem Tiwaawan man fépp laay dem man fu ñuy tuddee baatu laa ilaaha illallaah rek damay dem. Mhm. Mhm. Mhm. ñu lay nuyu di la kontaan naa.